gis nañ ne bi mu faloo 2012 ba léegi képp koo xam ne yaa ngi ci ku gi am nga doole te yaakaar na ne yaa ko mën a wuti ci siège bi créer na la ay problème mu ànd ceeg ay nit yoo xam ne tamit nag euh, damay wax ne toujours xamuñ fu leen Sénégal jëlee. Mm. parce que ñoom ñu doon layee bu njëkk muy président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom mooy ne opposition bi muy Ousmane Sonko ak keneen koo xam ne yaa ngi nekk ci biir opposition bi lépp lu yoon dogal da ko war a.

ay nit yoo xam ne yàgg naa laa wax ne la ci Sénégal gii ñu nekk lañ mm. juddoo. Mm. yàgg naa laa wax ne la ci école yu ñu jàngee ñun ci lañ jàngee. Mm. yàgg naa laa wax ne la jikko yu sénégalais yor yu ci bëri moom lañ yor ñoom. su nekkoon ne conseil constitutionnel ay malaaka lañ yoo xam ne ñoo ñëw fii. wala ay yonantu yoo xam ne yàllaa leen ni mën nañu wax ne nii ay sage lañ mën nañu wax ne nii ay nit lañ ay yonantu lañ yoo xam ne duñ juum. mais lu ci mën di ay sénégalais lañ comme ñun.

gëmoo ne yow li nga am mérit moom moo la ko jox mais euh, du doom aadama kon su ko defee tur woo noonu dafa nekk rek mais jikko ji tax ñu naan sage dëgg-dëgg nekkul fa parce que tamit ay noo la yoo xam ne ñu ñoo koy utiliser rek pour jéem a réeral nit ñi pour jéem a euh, nasaxal li nga xam ne ni moom mooy askan yi parce que mm. tamit loolu la rek tur yu bëri mm. tey ñu ngi koy utiliser ci état mm. bi ak yeneen yi day jéem a jaxase xelu askan wi mais dëgg-dëgg bokkul wala wóyewut li nga xam ne nii moom lay moom lay woote woo alors euh, booba tey mu daal di toogee ñaari côté ñu dal koy tëggee ñaari bor mhm. li nga xamné que moo le conseil constitutionnel ya ngi gis agissement yi ya ngi gis aussi opposition bi. Mhm. dina nga xam ni itam noonu la koy dal di exactement alors tay euh, le conseil constitutionnel ñu bari tegoon nii mo moo fa seen di war mëna ñëw recadrer mhm. la DGE ak li nga xamné que modi la CDC di nga xam ne moo di caisse de dépôt de consignation. au contraire ñu ma kon dafa ñëw pour tatchu len wala kon pour féliciter len parce que. Euh, dafa rejeté ki nga xam nekk moo peut-être Ousmane Sonko euh, si absence li nga xam attestation bi. est-ce que euh, yaa ngi doon xaaree dans ce cas de figure taxawaayu conseil constitutionnel allant dans ce sens. waaw man personnellement bettul ma. Hmm. parce que mun n'a wax ne continuité la rek. Hmm. mboolem béréb yoo xam ne président Ousmane Sonko mi ngi fa war jaar pour déposer ay recours. Hmm. wane ne lii ñu ko teg du yoon président Macky Sall préparé na ko xaar ko fa teg fa ay nitam. yon xam ne nii da ko préparé da ko préparé hmm. teg fa ay nitam yoo xam ne nii yaakaar nañ ne du ñu wuti ak moom kàddu loolu ngay gis tey euh, dañuy am damay wax ne man bettuma ci dara bettul ma ci ci mbir mi parce que président Macky Sall lépp lu mu bëgg rek mooy ne président Ousmane Sonko du bokk ci joŋante yi xoolul ci yoon xoolul ci ngor xoolul ci dara hmm. président Ousmane Sonko daal du bokk ci élection yi bépp moyen boo xam ne am naa ko dinaa ko utiliser ba nga xam ne du bokk ci li nga xam ne nii moom mooy moom mooy élection yi ànd ak nag ay nit yoo xam ne ni dëgg-dëgg li may li may wax toujours rek mooy crise bi gën a mag ci Sénégal bi nga xam ne président bii ñëw muy défi bu mag bi mu war a lancé mooy jéema a tabaxaat jikko yi ba nga xam ne nit buñ ko joxee responsabilité dina xam ne kat responsabilité bii ñu jox ma duut ne dañ ma koo jox parce que man maa fi ëpp xam-xam duut ne dañ ma ko jox parce que man maa fi gën duut ne dañ ma koo jox parce que man maa fi gën ay waajur mais lan moo tax ñu jox ma ko dañ ma koo jox parce que dama wara a liggéeyal sama sama réew dama war a ma tarbiyaal li nga xam ne ni moom mooy sama réew te képp kon xam ne yaa ngi tarbiyaal sa réew yaa ngi liggéeyal sa réew dëgg-dëgg yenn décisions yi doo ko def euh, damay wax toujours ne il faut ñu ñëwaat ci suuf ñun sénégalais ñun africains yi xam ne nit da ngay yegg foo xam ne da nga mm. war a liggéey pour des ci histoire. Mm. mais am na jëf yoo xam ne nii boo ko bindee tey ci histoire bul fàtte ne say sët say sët sëtaat dañ leen mm. ko nettali. parce que comme ni juge Kéba Mbaye ba léegi ñu ngi koy fàttaliku. ci taxawaayam yu am solo ak yu am rafet yi nga xam ne ñu ngi koy taxawal ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba ku mel ni Cheikh Mouhamadou Fadel ku mel ni Baye Niass ku mel ni Sidi Hadj Malick ay nit lañu woon yoo xam ne nii sénégalais lañu woon comme ñëpp. mais lan moo leen may tey ba léegi bu situation yu métti ñëwee bu dëkk bi jaxasoo suñuy xel demaat ci ñoom moy ne ñom dañu préparé woon gëm fi ko mais suñ fi joggé ko dañ fi bayyi netalé gu rafet sénégalais yépp dom rak jaar ci fofu nonu motax défi bu mag bi bi bi 4 euh, cinquième président ci Sénégal moy jikko yi. Mm. ba nga xamné képp ko jox nañ la fonction rek. Mm. di nga la alors peut-être analyse justement 16 conseil constitutionnel tey dafa wàcc wacc a wàcc li nga xam que mu andam non non dako ko da koo wàcc sax xaaroon nañ est ce que togon na ci andam ba diko wacc wàcc. Hmm. conseil con est ce que togon na ci andam ba diko wacc hmm. parce que dama ne la ñi fa nek mais amoon ngeen ci yaakar yeen opposition bi que ni bis bo leen ko saisiré lu bari dina changer non amun man awma ci won yaakar nit nak li nga wara def dang koy def li ci dess nga bayiko ak yalla li nga wara def dang koy def mais nit di nga jog dem ci mom diko bolé mu leeral ne kii ngay bolé ji kat

favorable ci nga xam ne moom mooy justice. Mm. jaar ak ba nga xam ne dina dëggal yoon. ba nga xam ne mm. kenn du mën a weddi yoon. Mm. mais nag kilifa goo xam ne nii moom xool loolu yëpp intérêt am lay xool. ak nan la ceebam di tooyee ak nan lay gën a mën a yàggee ci chaise bi nga xam ne moom lay toog. loolu yaakaar naa moom lañ xamoon ne moom lañ fay fekk moo tax amuñ ci woon amuñ ci woon yaakaar.

balaa sax ñu ñëw ci logiciel bi par rapport ak euh, ñi nga xam ni itam noonu leen daal di génné mm, ñi waron bokk ci fichier bi ñu dem ba conseil constitutionnel ñu ne ñuy bokkatuñu si euh, et tant d'autres et tant d'autres mais le tirage exactement dans l'ensemble euh, alors ba jangat nga ci am concrètement waaw bala may ñëw ci tirage bi nga may ma ma félicité docteur Abdourahmane Sall mom mi nga xamné mom moom lañ dénkoon hmm. lépp lu jëm ci walu parrainage ci PRP hmm. bu président hmm. Déthié Fall mu liggéey ci liggéey bu am solo. den fa daanelee sax. mu liggéey ci spécial ah, ah, boo ah, xam ne nii. yaakaar naa moom rek mooy parti bi nga xam ne validé na treize régions sur quatorze. mu doon liggéey boo xam ne ni yombul comme dañ fa ñëw incha mm. allah. Mm. bu ñu fa yeggee dañ ci gën a. dañ ci gën a yaatal mais xam nga tirage bi. tirage bi balaa ñu cee wax. réew islam islam. réew islaam est-ce que nangu na tirage. waaw réew réew dafa yor réew dafa doon lu am solo. Mm. te waruñ nangu rek képp koo xam ne ni tey am nga xaalis rek nga daggee ci langue gi ñëw ne damay laaj baatu askan wi parce que bu ñu fàtte ne président de la république mooy kilifa gi njëkk ci réew mi. Mm. moo jiite képp kon xam ne yaa ngi nekk ci réew mi. Mm. moo xam sëriñ nga moo xam kilifa aada nga moo xam politicien nga moo xam leneen ak leneen nga président de la république moom moo nekk sa kaw. kon lu am solo la. Mm. képp koo xam ne yaa ngi préparé wu pour laaj baatu askan woo noonu. dëgg-dëgg war nga am profil bi. segg bi war nañ ko seggaat ci am profil bi am xam bi am jikko ji am yar bi. am jaar-jaar bi ba nga xam ne nii tey. Mm. di nga taxaw nag door a taxaw jéem a laaj li nga xam ne nii moom mooy baatu askan wi. Mm. Euh, waxoon nañ ne ñun opposition bi mu musuñu wax ne waruñ segg ñi nga xam ne ñooy laaj baatu askan wi. mais laataa ñuy tirage ne segg ba pare ci seggin bi ci seggin bi. parce que tamit euh, ci tirage au sort mënuñ koo bañ. ñoom aju bu sumaar gis naa leen ñu dem génn. waaw xam nga am na loo xam ne ah, tey mënuñ mënuñ mënuñ koo bañ. parce que tey li fi amoon mooy bi fi Mimi Touré nekkee nga euh, xam ne nii. Ah, mooy coow li fi am bu nekkee mandataire u mm, mm, benn bokk yaakaar nga xam ne tey dañoo xëy kilifa yëpp dajee ci buntu conseil constitutionnel ñi kenn ku nekk di njëkkalante mm. maa njëkk a déposé wala maa mujj a déposé kon tirage au sort boobu nga xam ne dañ koy def pour jéem a moytu yenn xëccoo yi yenn xeex yi ba ci sax yenn kàddu yu ñaaw yi nga xam ne nii mi ngi fa doon jóg ñu nañ ko tirage ñi nga xam ne am nañ sens seen tur njëkk a génn ñu xam ne am nañ sens seen njëkk génn ñi xam ne nag ah, amuñu sens boobu noonu it Euh, wala liggéeyuñ lu tax loolu parce que sa tur euh, mën na mujj a génn mais su nekkee ne liggéey nga liggéey bi nga war a def ànd ci ak ñi ngi ci war a àndal ci région yi ci département yi ci communes yi comme ni nga xam ne noonu la ko président Déthié Fall defee def ko ci village yi yow nga njëkk a déposé ak nga mujj déposé moom moo ci bokk yem parce que sànq maa ngi lay wax avant ñuy dugg ne la kuy liggéey ak kuy wër di wax su des deewee résultats. yem résultat euh, exemple exemple exemple oustaz léegi nag loolu li koy li koy li wane mooy président de Fall lim wane parce que gis nga wax baax na trop mais du wax mon mooy Rio. réew wax na trop mais nekkul ne wax mon moy politique wax baax na trop mais nekkul ne wax mon moy hmm. xam-xam toujours damay wax ne Sénégal ñi fi ëpp xam-xam yàlla natt na leen bokkut ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy dégg ci ci ci média bi bokkul ak ñi nga xam ne moom la ñuy dégg ci yeneen espace public bi ñuy ñuy ñuy wax seeni xalaat kon président Déthié Fall dafa am lu mu indi lu bees ci parenage yi mooy wane ne politique liggéey la wàcc ci terrain bi wàcc ci militant yi wax ak askan mi nga am débat bi saa saa foante ak ñoom loolu mooy wane. <laughs> yaa waaw loolu mooy. mooy wane waaw waaw incha ah, allah si Déthié mm, mm, mais. Mm. Euh, wax nga ko sànq ni exactement que ni am na ñoo xam ni euh, liggéeyuñu mais mm. oustaz tamit li ñu mënul jàpp mooy mm. gis na ko euh, ñoom Bougane Gueye Dany mm. parcours ne li na xam ne que moo di le terrain quoi comme